أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala tey ñu war a jël ñeenti aaya ci suura yusuf aaya 73 74 75 76 ñeenti aaya yoo xam ne sunu boroom jalla jalaalu wa azza kamaalu lam ñu ciy jàngal mooy juróom-ñaari mbir yooyu ba ca jiitu mooy jawaazul xalaf billahi taala lil xaaja danañ jàng daganal gi sharia daganal waat ci yàlla waat ci yàlla dong la dagan waaye waat boobu sax balaa jullit bi di ko def foog mu aajo woo ko tey jii kuy dund fii ci réew mii di Sénégal dina seetlu doomu aadama yi waat niñ ko saxalee ci seen làmmiñ comme naan ndox waat ci lu amul bopp lu amul geen waat ci lu ñàkk fayda suñ doon waat sax mu nekk dëgg alhamdulilah waaye dañuy waat sax di bokkaale di waat ci ay doomi aadama te xam ngeen ne waat ci jaamu yàlla yi la bokk ndax jullit bu demee bay jël décision di wax dara ne dina ko def loolu yàlla dong moo ko yeyoo moo tax boroom xam-xam yi ne soo waatee defoo ko yow kafaara war na la ñetti mbir ngay def pour sa waat boobu yàlla baal la ko mais ñun fii dañoo tàmmal suñu làmmiñ yi waat waat di waat waat ci kenn xamul waat guddi waat bëccëg li nga gis koo xam ne ñëpp xam nañ ne fenkat la waaye nu mu munee waat te ya xam ngeen alxuraan mi ngi wax bi yàlla di xas walid ibnu mughira lan la wax hammazin mashaa'in bi namim mannaa'in lil xayri ah mu'tadin lu ci tegu koo xam ne dafa bëri lu muy waat guddi ak bëccëg loolu sharia daf koy tere jullit du waat waat bu bëri kañ lañ la digal nga waat mooy boo ci amee aajo yàlla dana yonent bi dana kuy giñ na giñ ci yàlla tana man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmu kuy waat waatal ci yàlla te noppi waat yàllaa ko moom dana njàng mashruiyatu def it tuhma ani nafsil bari dana njàng beneen masla mooy yoonal nañ ci sharia suñuy tuumaal nit mu défendre boppam bu fekkente ne leer na ne liñ koy tuumaal defu ko beneen bi mooy yow mi dégg ñu koy tuumaal tamit comme leeru la weddil ko mais xam ngeen fii ñun ñëpp li ñuy dund mooy bu ñuy tuumaal nit suñ ne sàmba rek nga ne ah moo du rek moo te loolu lu doy waar la gis ngeen mbokki Yuusuf yi léegi-léegi ci kanam danañ gis ne ba ñëwee di tuumaal rakk ji ak Yuusuf ñoom lan moo nekkoon seen taxawaay ci weddil seen mbokk nit day weddil mbokkam nit dafay défendre mbokkam unsur axaaka zaliman aw masluman waaye yow fekke woo yégoo tinoo ñu wax la rek nga langaamu ci loolu ab jullit def ko war a mooy tëndiku ñetteel mooy maarifatu xukmu saroko fi shariati yaqub alayhi salaam danañ jàng tey lan moo nekkoon atte sàcc ci sharia yaqub xam ngeen ne yonent yépp ñoo bokk benn diine bu leen yàlla yónni mais bokk ju sharia ñoo bokk woote nag ci tawxid wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah tawxid bi ñoo ko bokk mais sharia bi bokkuñu ko dinañ jàng tey lan moo nekkoon atte sàcc ci sharia yàqub ñeenteel danañ jàng bayaanu husnu tadbirillahi taala li awliyaayi yàlla tabaraka wa taala dafa yor aw doxalinam aw tëralinam ci xaritam yi moo tax képp ku xeex xaritu yàlla rek di nga lab ci géej goo xam ne boo ci labee dootoo génn képp ku gasal kàmb xaritu yàlla yow yaa ciy njëkk a pattaxlu sunu boroom moo yor doxalinam aw tëralinam ci ay xaritam ci ay soppeem jàngeen alquran ne ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñan ñooy ñooñu mu ne allazina amanu wa kaanu taquun ñooñ ñooy xaritu yàlla yi juróomeel danañ jàng bayaanu hukmu saraka fi qanuni misra ala ahdi yusuf alayhi danañ jàng lan moo nekkoon loi lan moo nekkoon atte sàcc ci loi Égypte jamono bi fa Yusuf nekkee lan moo nekkoon seen àtte xoolal sànq lan lañ wax lan mooy àtte ci sharia fii ñu ne lan mooy àtte Égypte ba fa Yusuf nekkee lan moo nekkoon ñoom seen àtte juróom-benneel mooy ulu maqaamu Yusuf alayhi salaam fil ilmi dina njàng kawe gi nga xam ne xam Yusuf kawe woon na ko ci xam-xam yonent la woon waaye yonent boo xam ne yàlla dakaa may xam-xam ku kawe la woon ci njombaxtal li ci xam-xam moom yusuf mais dana jàng aussi taqrir qaida wa fawqa kulli zi ilmin alim dañ jàng benn règle boo xam ne fépp boo gis boroom xam-xam am na ku ko raw fawqa kulli zi ilmin alim amul koo xam ne moo raw ñëpp ku weddi laajal Moussa keroog ba mu ne yàlla banu Israil de yaakaar naa ne fi mu nekk nii maa fi raw yàlla na ko déedéet am na sama benn waay bu nekk majma al bahrayni moo la raw ba mu demee mu fekk fa koo xam ne bokkul ci yonent yi te kookoo ko raw kon fawqa kullu zi ilmin alim koo gis rek mu am xam-xam am nga ku la raw kenn rawul ñëpp xam lépp mën lépp kooku kenn kese la mooy allahu subhanahu wa taala lan moo tax doomu aadama munoo am xam-xam baraw ñëpp mooy wa ma utitum min al ilmi illa qalil wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ila an yantahi al ilmu ila allah fawqa kulli zi ilmin alim ba mu egg ca yàlla foofu nag mooy dañ dëpp gi kenn du ko romb nag moom ndax ku xam yàlla la xamal wa huwa al alim al hakim kon suñu tënkee juróom-ñaari tomb yi moo ñuy delloo ci ñeenti aaya yi nga xam ne moom lañ fas yéene jël tey ñu ñaan suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi mu dëgëral suñu làmmiñ ba duñu tarxiis génn ci aaya yi mu dëgëral suñu làmmiñ ba duñu juum ñu bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi insha allah jazakumullah xeyran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
jazakumullahu xayran am nañu la yàlla fayal yiw sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi ànd ak ñun ba tey di ñu nettali la xewoon ca histoire Yuusuf ak ay mbokkam ak rakkam ya xam ngeen ne sunu dars passé Yuusuf tëraloon na doxalin na aw doxalin woo xam ne bëgg na rakk ji des ci moom ba mu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nattkat ya ñi nga xam ne ñoo doon jaay dund ba ñu tëral seen benn pexe tëral seen benn plan pour Benyamin des ci palais bi bañ a génn xanaa bu demee tamit ñu indiwaat ko biñ tëralee plan boobu ak doxalin woowu ba tàggu tàggatoo bu rafet kontaan ci buur bi buur bi kontaan ci ñoom ñu daal di takk laxasaay yéeg seeni waruwaay départ garde yi bàyyi leen ba ñu egg ci digg àll bi ñu wëri leen daal di leen di dabi daal di leen di encercler ne leen yéen ay sàcc ngeen ah mu nekk baat bu leen bett nag baat bu leen choqué qaalu ñu daal di ne tallaahi giñ nañ ci yàlla gis nga ñii ba ñuy waat fan la ñu waat pourtant seen papa yonent la waxuñu bi yaqub pourtant mënoon nañ koo wax de wala fii tey boo interpellé kenn rek la mu lay wax barke sëñ ek direct rek moom ba ci ci ci kooku lay jëm parce que loolu la gëm parce que loolu moo nekk ci xol yi moo tax direct rek koo fi interpellé rek lu dul ku yàlla namm rek soo ko nee rek danaan barke tudd ki muy bugg a wax gis nga ñii bañ leen interpellé ci digg àll bi gisuñu sàmm gisuñu demba ci kan lañ dem qaalu ñu ne tallahi mun nañ ko waate wala wala billahi wala wallahi tallahi gis nga giñ nañ ci yàlla laqad alimtum yéen ñii xam ngeen ñun maa ji'naa li nufsida fil ard ñun ñëwuñu fi pour yàq suuf loolu loo ciy dégg mooy sàcc lan la da yàq sàcc yàq la te yéen xam ngeen ne ñun ñëwuñu ci kaw suuf pour yàq suuf si abadan wa ma kunna sariqin ñun duñu ay sàcc parce que ñun sunu papa yonente la sunu maam papaam yonente la sunu maamaat yonente la kon ñun naka la ñuy nekkee ay sàcc loolu lañ lay wax lu juddoo ci tàgg bu naawul moom la tugalóori naan yi ma mujji baaba mujji ngel mën a daa maanaam yow buñ la xamewul dara lu bon nga def ko lan la nit ñi di wax Mariama keroog ba mu gàddoo doom ja jóge ci àll bi ba mu ñëwee ba jib daa dëkk ba luñ ko wax yaa uxta Haarun yow sëru Haarun ah xam nga ne lii sa mbokk xamuñu ko woon sa yaay du woon njaalookat sa papa du woon bandi kon lii foo ko jële gis nga pourquoi ñu dem ci famille bi direct parce que dañoo fam dañoo xamee famille bi ak mbaax maanaa yow boo bokkee ci famille ñu xamee la ak mbaax góorgóorul mbaax googu nga sàmmal ko famille bi waaye nag doomu aadama moom léeg-léeg day tarxiis ndax kullu ibnu aadama xata wa xayrul xataayin tawaabuun boo tarxiisee tamit nga delluwaat rek xam ngeen ne ñun ñëwuñu ci kaw suuf pour yàq suuf maa ji'na li nufsida fi l ard wa ma kunna sariqin ñun ñëwuñu pour yàq suuf waaye ñun duñu ay sàcc duñu ay bandi xam ngeen ko bu baax a baax a baax ndax yàgg nañ fee ñëw ah ñee mayu ñu leen bàyyiwu leen rek ñu wax loolu ñu ne leen dem leen déedéet qaalu fama jazaahu lan mooy fayu ku ñu fekk li ñu sàcc ci moom in kunna kaazibin bu fekkee fen nañ fama jazauhu lan mooy fayu ki nga xam ne dañoo wër affaire bi fekk ko ci moom maanaam kooku lan lañ koy jox ñu ngi leen di bëgg a ger pour kenn ci ñoom volontaire ne man maa ko sàcc kon moo ngi nii génne leen ko qaalu jazaauhu man wujida fi raxlihi fa huwa jazaauhu ñu ne xam ngeen lan mooy fayam ñoo ñu ne déedéet ñu ne fayam daal mooy kuñ ko fekk ci moom mu yore ko kooku moom mooy moom mooy fay bi maanaam moom la ñuy jël yóbbu ah kon ñee kàmb gi ñu leen gasaloon tàbbi nañ ci ñoo ñi ñee loolu la ñu bëggoon ñu wax parce que loolu moom mooy seen àtte seen loi mooy soo fa sàccee bu ñu la jàppee waxuma la ñuy jël liñ sàccoon yóbbu waaye yow sax dañ lay yóbbaale def la jàmm loolu mooy loi ba ñoom nag loolu lañ bëggoon lan moo tax garde yi wax leen loolu mbokk yi ma laaj ma laaj leen lan moo tax garde yi wax leen loolu te bokkuñu loi ñoom ah kan mooy ma tontu bismillah Yuusuf moo leen ko dee ci suuf ne leen ah yéen nag seen àtte ak àtte ñee du benn de waaye fii at ñoom seen àtte ngeen leen di sëmbaxal normalement dëkk bu nekk la ñuy àtte loolu la ñu fa war a àtte tey bu ñu jàppee sàcc Sénégal ak ñu jàpp sàcc màkk est-ce que ni ñuy àtte sàcc màkk noonu la ñuy àttee sàcc Sénégal ah màkk bu ñu fa jàppee sàcc ni ñu ko def dañuy dagg loxo bi Sénégal bu ñu jàppee sàcc dañ lay jëndal mbur ak bóor moo tax du benn léegi nag comme Youssouf xam na ñee seen àtte mu ne leen ngeen demee di wax ak ñoom bu leen leen wax yéen seen àtte wax leen leen ñoom seen àtte ndax ñoom seen àtte mooy ku fa sàcc bu ñu la jàppee jaam ngay nekk ah ban demee ne leen qaalu jazaa'uhu man wujida fi raxlihi fa huwa jazaa'uhu ñu ne suñu wëree daal képp ku ñu fekk li ñu sàcc ci sa mbuus ci sa sàkk yow yaay fay bi kazalika najzi zalimin loolu moom mooy fay tooñkat léegi lan mooy wax ji fa badaa bi awiyatihim au lieu que ñu tàmbalee ci bésu binyamin kon day day yomb day teel a feeñ ñu tàmbalee ca mag ña di tekki par mbuus di xool ah ku ñu gis nga ni mu ngi nii nga ñuy boroom xam-xam yi nee nañ mbokk yusuf yi ñoom dañoo yoroon ñaan yoo xam ne ku leen tooñ suñ ko waxee rek dañuy ngande ba kenn dootu leen mën a mën a maîtriser ba gaa yi ñëwee ne leen yéen ay sàcc ngeen ñu commencé di neew yi ku neew yi rek yusuf laal la nga peer nga gëstu naan sa fere kan moom yow da nga maa laal yow mun na man jegewuma la la la laalee ku neew yi rek yusuf ne la waaye looy ngand ngandul ne la waaye saa dalal nga jeex tàkk daal di peer parce que ñoom loolu mooy seen loolu mooy seen mbir ku ci ngand rek sa sa sa mbokk bu la laalee rek comme yéen a bokk deret nga wàcc comme Youssouf a ngi ci délégation bi ku ci dof dof lu rek mu ñëw ne la lan la yow looy ngand ngandu lu nii ngeen sàcc ba pare di jaay maanaa laal la rek nga peer nga gestu sa mbokk yi naan waat ku ma laal fekk moom moo la laal ba ñu tàmbalee di tekki di tekki di tekki di tekki ba yegsi ci Binyamin a allahu akbar fa badaa bi awiyatihim qabla wi'a'i axi gis nga ci ñële lañ tàmbalee balaa bosu frère am bi summa staxrajaha allahu akbar min fii wi aay min wi aay axi ñu génne ko nag léegi ci saaku kan saaku binyamin coow am na allahu akbar mu ne leen voilà yéen ak fi ma jaar ak yéen ak teraanga gi ma ko defal yow mi ma fat la ci sama néeg amoo loo may fay lu dul nga bàyyi bañ defal la ba pare nga dem sàccu nattukaay bi mais ñoom suñu suñu xellu woon tuuti rek ci ñaari mbir danañ war a xam ne ñoom sàccuñu mais xam nga leen saay doomu aadama boo nekkee ci tension dootoo mën a maîtriser sa bopp sa dëgg sax dafay dem ba réer la surtout affaire bi daf lay def choc dootoo mën a défendre sa bopp mais mënoon nañu wax ne ñun jaayuñu suñu bopp nattukaay bi mosuñu koo gis ndax ñun ñoo nattal suñu bopp ndax ñun ñoo takk suñuy saak ñi ko doon nattu ñoo ko ci fàtte beneen bi mooy ñun xamuñu woon sax nattukaay bi nu mel xamuñu fu ñuy nattee deux troisième mooy ñañu delloo woon suñu xaalis ba ñu ñibbi fekk ko ci ñooñu ñoo ko ci defar parce que ñoom première fois bi ñu leen jaayee nan la nan lañ def seen xaalis bi ñu yoroon dañ ko ci dugalaat takk ko kañ lañ ko gis bi ñu demee ba yegg ku nekk nga tekki doon xool kilo yi ñu la jaay ndax mat na nga fekk sa xaalis bi ñu la jaayoon mu ngi ci kon ñoom mënoon nañoo génn waaye nag xadarullah wa ma shaa faala yàlla tëral na mbiram mbir yi noonu lay doxee yàlla lum dogal kenn mënu ci dara yàlla dogal na ne donte ne wax nañoo ak seen papa jox nañ ko ay conditions yu leer ne ko dinañ delloo si xale bi mais suñ borom subhanahu wa taala lim dogal mooy xale bi du dellu si dañ koy dañ koy jàpp mu nekk ci Yuusuf ba yàlla di dogal ñuy gisewaat xale bi ci Yuusuf lay nekk beneen bi mooy nattu yàlla ya nattu yàlla wàcc na ci kaw Yaaqub kon natt boobu foog mu assimi ko mooy lan ñaari xale yi foog ñu sori ko tuuti ndax xelam mën a delluwaat ci yàlla mu mën a wéetal yàlla mën a sàbbal yàlla mën koo bàkk mën koo kañ ndax yàlla delloowaat ko xale yi sunu borom subhanahu wa taala mu ni nettali mu ne kazalika nii ngeen déggee xissa bi kitnaa li yusuf laa yombale la yusuf pexe pour lan mu mën a téye rakkam ci wetam du ko bàyyi mu dellu ànd ak ñoom dellu ca baayam ma kaana li yaxuza axaahu fii diinil malik mu mën a téye mën a maîtriser frère am ci sharia maanaam ci sharia ban ah ci sharia buur ba fii diinil malik foofu diine bi sharia la fii sharia al malik ndeysaan is kaana yadribu saariq wa yuxram bi misli ma saraq jamono yooyu bu ñu jàppee sàcc dañ koy teg diisaayu lu tolloog la mu sàcc ñoom nag au lieu que ñu daal di koy jàpp ci seen sharia ñu dem jàpp ko ci sharia yaaxuub parce que sharia yaaxuub mooy ku sàcc dañ lay def jàmm Yusuf mosoon na nëbbu benn ceinture boo xamante ne ñu nekkee xale ci tàntaam la ko jëloon bàjjanam mu nëbbu ko ndeysaan séentre ba mu feeñee ñu commencé tuumaal Yuusuf ne ko sàcc la fekk da doon foo ak tànta ji rek waaye moom musta sàcc moo tax chaque jour ñoom suñu amee problème ak ñoom rek ñu ne ki ñii kii kii si sàcc la woon magam sax mus na sàcc fekk na séentre boobu lañ doon wax suñu borom subhanahu wa taala mu ne illa an yasha allah lu dul la neex yàlla suñu borom moo koy neex yenn saa yi mu tëralal ay nit ay mbindeef ay doomi aadama wala kenn ci borom xam-xam yi mu yenkewal ko loo xam ne amul kenn ku ko xam ci mbindeef yi borom bi tabaraka wa taala mu ne narfau darajatim man nasha man maa yëkkati daraja ku ma neex man nasha yàlla ñun ñëpp suñuy mbir ci yàlla la nekk yàlla mooy yëkkati yàlla mooy wàcc yàlla mooy fal yàlla mooy folli qul illahumma maalikal mulki tuutil mulk man tasha yàlla nee na maa moom nguur maay jox nguur ku ma neex wa tanziul mulka gis nga mbirum nguur moo tax chaque jour folleeku folleeku nii du yomb ci ki ñu faloon ndax yàlla nee na kenn du la folli nii nag mais dama koy buddi dama koy foqarti moo tax chaque jour nga gis nguur goo xam ne su waa ji di daanu day am mbetteel ndeysaan day da koy bett fi mu neexee la ko yàlla di buddee mu perte ko ku ko ko waxoon ne da ngay daanu du ko gëm waaye yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu narfa yàlla nee na maa yëkkati darajaat ay daraja daraja mooy ay garaat ay martaba suñ nee darak nag mooy ci biir jahannama ci biir fu mu gën a suufee amma daraja mooy fu mu gën a kawee ñaar la yu wuute suñ borom subhanahu wa taala mooy xool doomu aadama bu ko nee mu yëkkati sa daraja mu yëkkati sa martaba su ma leen doon jox misaal bu gàtt tey ci Sénégal Sonko ay ay at yu passé kan moo ko xamoon ndax tekki woon na dara Sénégal ah ak politiciens yu ngand yi misaal rek laay joxe waxuma turam pour nangam ma joxe misaal rek jamono yi ñu koy daax impôt et domaine ndax tekki woon na dara tey ndax mun nañoo wax Sénégal te tudduñu ko daraja la yàlla muy yëkkati waate ku ko neex mu yëkkati la kenn mënu ci dara du question Samba ko jur wala Demba ko jur kon dafa war a martabaam dafa war a jóg wala mbokk ñoom sàngam la marta déedéet mbir yi ci loxo yàlla la nekk narfa'u darajatin man nasha yàlla mooy fekk fii koo xam ne kenn xamul sa ndey ak sa baay mu fexe ñépp dégg la mooy fekk koo xamante ne ci nguur la juddu ci xam-xam la juddu mu daal di koy wàcce ba kenn dootu ko tuddati ci loxo yàlla la nekk jalla jalaaluhu wa azza kamaalu borom bi nee na wa fawqa kulli zi ilmin alim ah koo gis mu am xam-xam am na ku ko féete kaw yonent yàlla Moussa dafa ne woon yàlla instant yi de xanaa maa fi raw banu Israël xanaa maa fi raw yàlla mun na ko déedéet am na ku nekk majma bahrayni moo la raw sama benn jaam la mu ne yàlla kon kooku foog ma gis ko yàlla mu ne ko da ngay jël benn géej nga def ko ci saak nga ànd ak sa benn taalibe su ngeen demee fu ngeen ko fàtte rek foofu la mu jël ko dem mu yegg foofu place ba géej ga ñu fàtte ko fa ñu dem ba sori ñu fàttalik ko ñu defaat demi tour ñu fekk géej gi la woon waaye mu nekkaat jën di lappi lappi ci tefes gi parce que ndoxum géej gee ko laal yàlla dekkil ko mu ne ma fii mu ne mu ne ki mu àndaloon fii la yàlla wax waajooju fii lañ koy fekk ñu toog rek gis waa ji ñee mu ne ko damaa bëgg a ànd ak yow li la yàlla xamal nga xamal ma ci mu ne ko munoo ànd ak man mu ne ko lu tax mënuma ànd ak yow mu ne ko parce que doo bokk ci muñkat yi mu ne yàlla yal nag ma def muñkat mu génne boppam ci biir muñkat yi au lieu mu ñaan mu dugal boppam ci muñkat yi mu ne yàlla def ma muñkat moom kenn kese boppam gis nga ñu départ jël gaal bu ñu demee ba ci digg géej gi waa ji jël benn jaasi di bënn gaal gi mu ne ko yow looy def ni da ngay bënn gaal gi pour nit ñi lab mu ne ko waxoon naa la munoo ànd ak man parce que man ko ànd ak man lu ma def du laaj mu ne ko baal ma dootuma ko defati ah du loolu bu ñu wàccee gaal gi lu mu def gis benn xale daal di koy tëral reen ni mu ne ko soo ki yow criminel nga mu ne ko waxoon naa la mënoo ànd ak man mu ne ko bu ñettee jeex na maa yow dañuy tàqali ko ñu dugg benn dëkk ñu xiif ne leen may lañ ñu lekk ñooñu faalewuñu leen mu gis fa benn miir bu bëgg daanu mu simmeeku mook taalibe bi ñu defaraat ko waa ji mu ne ko yow yaa ngi egg ci dëkk bi nga xiif di faa kenn faale wala nga naan da nga leen di defaral mu ne ko xam nga yow nag waxoon naa la maa yow mënuñoo ànd Moussa bëgg a jégglu mu ne ko non terminé léegi nag mais balaa ngay dem kaay ma wax la ñett yi ma def mu ne ko bu njëkk ba gaal gi yàlla moo ma xamal ne bu teeroon am na benn buur bu nekk ci tefes gi bépp gaal bu teer bu baax da koy nangu waaw ñu nangu sa gaal ak sa gaal bënn gaal gu bënn gaal gu ñu nangu ban moo gën a moyen lu gën a yomb ah ñu rey la ak ñu dagg sa nopp ñu ne la kaa ñu rey la kaa ñu dagg sa nopp tànnal benn booy jël bu gën a yomb waaw kon ñu bënn gaal gi moo gën a yomb ñu nangu gaal gi mu ne ko yow boo amoon xel sax gis nga bi ma gënnee gaal bi ma bënnee gaal gi ndox mi dugul kon loolu waroon na la may hikma bënn naa ko te gis nga ndox mi dugul parce que yàlla la mais xam nga doomu aadama moom yow loo nga li nga mën a gis mooy ci kaw nga xam mais xamoo lu ci biir mu ne ko ñaareel bi amal gulaam fa kaana abawaahu muminayni fa xasiina an yurqihuma turyaanan wa kufra xale bi ndeyam ak baayam dañoo gëm yàlla waaye xale bi bu màggee day tax ndeyam ak baayam nekk ay yéefér moo tax yàlla mu ne nañ ko rey balaa muy màgg nga léeg-léeg doomu aadama bëgg doom doom doom doom doom doom ndeke bu doom màggee toroxal la bu doom màggee teg la fitna bu doom màggee doomu aadama tey doom jaral na ko lu nekk ah nga may doom jaral na la lu ne mais xamoo moo tax chaque jour doomu aadama warul fàtte ci ay ñaanam rabbi habli mina mina salihin yàlla yàlla nag ma may ci doom yu baax yi parce que yàllaay maye ñetteel mu ne ko miir bii nga gis ma doon defar dafa am ay xale yoo xam ne jirim lañ seen papa dafa faatu waaye daf leen bàyyi woon lu ñuy dundee mu teg benn miir ci kaw miir bi nag bu daanoo nit ñi dañuy gis kon bàyyi ji fi mu leen dencaloon seen ndono moo tax yàlla mu ne naa tabaxaat ci kaw miir bi naa ko defaraat pour ëllëg bu ñu màggee ñu mën a jël ñoom seen alal yi nga xam ne fii la leen ko seen bàyyi dencaloon mu ne ko ñett yi mooy mbir yi nga xam ne mënoo woon muñ pour ma nettali la ko kon looy dégg mooy fawqa kulli zi ilmin alim ku am xam-xam ku ne loo jàng-jàng-jàng loo ngand ngand ngand ndeysaan nettali naa leen benn xissa yaakaar naa ci tafsir yi passé am na benn waay boo xamante ne ci jamono ju yàgg la woon moom bépp masala moom lañ ko daan laaj mu koy tontu bépp masala moom lañ koy laaj mu koy tontu bépp masala benn bis ñu ñëw laaj ko benn masala boo xam ne xamu ko waxu leen xaw ma ko mais dem leen ne dem leen dinaa maa ngi ciy gëstu mu def lu nekk mënul xam masala bi lu nekk la def mënul xam masala bi lu nekk lu nekk def nag ba benn jigéen bu ko daan indi lekk bu tëjoo kooku moo ko fëgg ne ko yow yow temps yi génnatoo de mu ne ko man daal benn masala lañ ma laaj moo ma jaaxal la ko lan la mu nettali ko mu daal di koy wax masala bi mu ni la wala man weer wi ma tëj yëpp ndeke masala bi maa ngi nii loolu lu ñu ciy jàng mooy boroom xam-xam yenn saay bu ñu la laajee du waroo tëb rek tontu c'est dangereux ñu laa la rek nga tontu da nga war a loo ci xamul da nga war a delloo nit ñi ba ñu dem nga xalaat ci laajte xoolaat téere yi nga doog a tontu fawqa kulli zi ilmin alim ku nekk rek loo xam am nga ku la raw suñ naan fawqa kulli zi ilmin alim nag nekkul rek ci charia de ah kenn ku nekk fii ci yéen di liggéey li ngay liggéey am nga ku la ko gën a xam kan moo fi dawal oto am na ku la dàq dawal kan moo fi peintre am nga ku la dàq peintre kan moo fi mécanicien am na ku la gën a mën a kan moo fi tôlier am nga ku la ku fi nekk commerçant sax am nga ku la gën a maîtriser commerce koo xamante ne taf-taf lay def moom loo maîtriser rek am nga ku la ci raw fawqa kulli zi ilmin alim ci lépp nag fi kulli fannin yenn saa nga dégg ñu ne kii alim kullu fannin amoon na benn waaye ndeysaan dama dajeeg moom aéroport Jidda benn soudanais la ñu bokk vol mu war a wàcc Mali ñu toog nii di waxtaan comme vol bi demagul mu ne ma xaal taarif mu ne ma ndax xam nga cheikh si nekkoon Soudan nu mu tuddati la ilaha illa Hassan Turabi hal taarif Hassan Turabi ma ne ko la asma'uhu faqat wa ara suwarahu wa baadul ahyan aqwaluhu fi internet mu ne ma ndax xam nga Hassan Turabi ma ne ko déedéet damay liir rek ay waxam ci internet bi ak yenn saa yi may gis ay audio wala ay photo mais xaw ma ko mu ne ma am na 14 doctorat 14 doctorat la am kooku am na xam-xam de façon xam-xam bu nekk mu am ci 14 ba mu am ci doctorat 14 xam-xam mu am ci doctorat mu ne ma kooku moom la américain yi di bañ a gis fu mu yendu du fa fanaan ndax américain yi dañ ne ku dangereux la Hassan El Basir moom moo ko yóbboon pouvoir après la yëg daal di leen di war ñoom ñëpp mais ñoom ñoo ko yóbboon pouvoir ba kon bëri na ñu bëri xam-xam trop waaye koo gis moom xam-xam rek am nga ko ko raw léeg-léeg nga dem ba sa xam-xam nga paan mënatoo dem ñu ne woo leen diw wool diw moo lay génne ci lii de ñu woowaa ji fa mu toog téléphone mu ne foo toll ñu ne nangam mu ne defal nangam defal nangam defal nangam maag benn chauffeur dañoo ànd ci àll bi ñu dem ba ci àll bi caabi ji kale ci biir ci ci ci oto bi oto bi bañ a tàkk ñu kërti kërti ba sonn mu bañ a génn mu ne waaye xaaram mu woo benn waaye kër waa ji ne ko moom bësal xaw ma fan mu daal di laar ak caabi ji daal ne pour xir génn ma ne ko gis nga de fii nga ne waroon dajji caabi ji ci oto bi wala kenn du ñibbi dafa am fu mu laal rek kooku ne ko laalal fenn mu laal rek caabi jigéen mooy loo xam rek loo maîtriser maîtriser am na ku nekk sa ginnaaw ku nekk sa kaw ku nekk sa wet koo xam ne lii nga xam moo la ko gën a xam moo la ko gën a xam loolu mooy qaida bu yàlla tegal ci àdduna fawqa kulli zi ilmin alim kon ci aaya boobu mbokk yi la sunu dars tey di jeexee ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu def ci ñun dégg ak topp déggal ñu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh